ñooñ dañoo ñàpp ndey ma réew. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey suivre ETDR wala Gaston Production comme niñ ko defee woon daaw ceer yaakaar naa ne mbaaxantal la parce que daaw defoon nañ ko fii ci góor yombul tisi muy maam góor taalibe sëñ Babacar bi daaw nag moo fi woote woon safar bu am solo ren aussi tamit dàbbaliwaat na ko comme ni nga gisee image rek ni nga ko jëlee ci suuf ni nga ko gisee ci waañ bi gisee ko ci base bi yaakaar naa ne taalibe Cheikh tey taalibe sëñ Babacar mooy sant Cheikh Ahmadou bàmba muy lu am solo ñu ñëw nag fekk fi ki nga xam ne mooy ndigal ak ki nga xam ne mooy Mathia Pereira ak Lirou Diane les grands monuments yaakaar naa ne nag foofu la ñuy commencé waxtaan bi comme nañ koy defee nag Lirou nag commencé na ci safara bu baax a baax Thierno El Hadj Mathia maa lay nuyu baax a baax di la siyaar bàyyi la nga nuyu mbokk réew moo Modou Anta maa lay fay di bëgg a waa Thierno ginnaaw ma sante yàlla julli si yeneen di sant sama waajur bu jigéen di ñaanal suma waajur bu góor fu mu tëdd yàlla na suuf si woyof si kawam ak bépp waajur di santaat maam góor góor yombul xamante ne moom dara la ci géejawaay waaw boole ñëpp yemale ñëpp ku xew la mu ngi sawet def ci dooleem def ci xam-xamam wax ci kon tey bu ñu woowee fii si safar gi tey dañuy bàyyi lépp lu jàppoon ñëw wuy si ko waa di ko wax ne lii rafet na ñëw nañ jàngkat yaa ngi suuf ñu ngi waajal wàcc suuf dem si cant yi di ko ñaanal mu koy def chaque at mu doon loo xamante ne gudd fan lay nekk ci moom wér gu yaram ak yokkute bu wër waaw parce que lii dafa neex wax nga ko taaliba Seex taaliba sëñ Babacar Si boo xamante ne tey bu safar ñëwee chaque at da koy def comme xam nga kon loolu dalay won ne murit ak tijaan laayeen lépp benn la moom mi ngi boole kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla na li sax si moom. Euh, nan la commencé. waaw góor yombul suñu relation mooy mu nekk géejawaay bëgg doomu géejawaay. tey képp ki nga xam ne yaa ngi géejawaay di bay sa waar rek góor yombul tey dina jël dooleem kàttanam di ko def ci yow tey man noonu la jëlee ay kàttanam ak dooleem def ko ci man parce que waaw dem naa fi ay yàgg na ma jàppale yàgg na sonn ci man di def yoo xamante ne man sax mënu ma ko nettali fii nii ba pare pare day pare woo ma téléphone ne ma ngir yàlla ak yenente bi na yem sama diggante man ak yow barke Serigne Babacar si après affaire bi dafa may def kaa quoi maanaam nit dimbali la di dimbali boo yëg mu ne la plateau sax boo fa toogee dimbali ma na yem sama diggante man ak yow ma xam ne kii nit gënu koo nite man tamit ma jàpp ko rek ngir jëmm yàlla ngir jëmm sëriñ Babacar si bu ñu yàlla boole parce yàlla daf ñoo boole ku ñu mënut a séddoo muy sëñ Babacar si. am na solo ñun nag luñ tëgg lu nekk rax ci përëm jóge nga ci sa combat ak ki nga xam ne mooy njàng Ballo nga jëlaat beneen combat muy jokkeel bi nga xam barki Demba Ndiaye daan na sa rakk xaw ma sa mag fii nga jooy fa jooyu rëy rëy rëy jokkeel nga jël. waaw sant yàlla rek xam nga nii la. tey dañoo am ci lu ñu jógee war a am ci lu ñu wone war a am fu ñu jëm nekkoon nag suñuy moroom mun naa ne kenn rawul kenn parce que làmb moom kenn rawul kenn mais tey daan sama xarit sama doom ndey ki nga xam ne ñoo foowandoo juddandoo yarandoo ba nii ñu tool nii tey bu ma koy yóbbu kër ak papa yéene ak kattan gi ma amoon ak gëm-gëm bi ma amoon mooy papa tey dafay jëlee euh, jokkeel yàlla ak dogalam gis nga ko yàlla dogalee ñuy dawal bëriwaat na fi am naa fi combat ñàkk yàlla def. ñu bëgg sama combat ak Jokal mu jóge ci defet ma jóge ci defet ñu boole ñu. may ñaan yàlla mu defal ma ndam ci kawam. par rapport ak rumeur yi ñuy dégg géejawaay nag gis nañ yenn xale yu aussi tamit seen gëm-gëm la wax ñu ci mel ni 5 tonnes ñu ci mel ni bébé Elton coow li tey Balla Gaye suba Lac de Guiers suba Sa Thiès aussi tamit seen position lan la ci. ñooñ dañoo ñàpp ndax. non defal nànk non defal nànk rek. gis nga gis nga man dama dama leen a mënul gis non defal nànk man dama leen a mënul gis barke alxuraanam karim dama leen a mënul gis parce que yéen ñii naa fekk la seytaane la boo taxawee si internet bi wax lu la neex boo xëyee dem seetuwaat mbër mi barke démb la dem kër la dëgër barke démb nga toog yàq la dëgër nga dem kër la dëgër suba boo rombee Balla Gaye reetaan ko ginnaaw suba nga yàq Balla gay ba pare dañuy mettre mal nit ñi ak sénégalais yi mettre mal géejawaay ak mbër yu mag yi ay naafik lañ defuñu fi lenn loo xamante ne tey war nañoo mën a taxaw di yàqante géejawaay mais ku la neex bëggal ku la neex mais nañ ñu bàyyaat suñu géejawaay mais ñoo xamante ne tekkiwuñu suñu sunna non non ñii dañu fay ñii dañ ñii ñii dañuy man moo leen mënul gis barki laa ilaha illallah mënu ma leen gis mais yaa ngi géejawaay ñu ngi géejawaay wallaahi nekkuñu géejawaay mënu ma leen gis laqatu gu métti lañ nekkee ci réew mi billaahi wallaahi tallaahi ñoom xam nañ bu baax li may wax ñu dina jàpp leen ñun fii kenn mënuñoo jaxase kenn mënuñoo yàq mënoo tey nga yàq nit suba nga dem këram tey nga yàq kii ginnaaw suba nga dem këram loolu mënul nekk nit ki boo ko amee boo ko bàyyee da koy bàyyi te yàlla tax nga dem toogi jàpp sa ñàmbur tey nga taxaw internet bi nga yàq doomu aadama koo xamante ne moo la gën yaay gën la bàyyi gën la tekki fuuf ci réew mi tekki woo dara sa wax jooju rek nga yaakaar pour nit ñi may la kër nit ñi nga wéeru kër sëriñ si nga wéeru pour ñu la yëkkat di la may yaakaaroo sa doole yaakaaroo sa kattan yaakaaroo dara làmmiñ gii nga yor moom nga yaakaar nga bëgg a taxaw jaxase suñu géejawaay gii bëgg doo def affaire mal mal os te nag Salif suñu mag la Sa booy ñu ngi koy maatil mettre mal ak nit ñi te nit ku baax la amul benn problème mosoo koo dégg mu génn wax lu ñaaw da ngay dégg léegi boo demee TikTok saa Thiès ngay gis ñuy def naa nit ko baax di gaaruwaale te ñaar ñu bokk ndey ak baay lu ci waaye mun te wax lu rafet na nga ci maanu gis nga kuy dugg ba dugg ci kër famille nag naa fekk mënul weesu loolu kuy dugg ba dugg ci ñaar ñu bokk benn ween nga ne da ngay dugg seen biir di xool ku baax ak ku bon naa fekk mënul weesu loolu nit da ngay direct nit doo foo booy nañ réglé booy lu ñuy def nii dekkul si ñoom ñun xamante nañ ñoo juddandoo fii yarandoo fii màggandoo fii xamante nañ bu baax a baax. mais li muy bari est-ce que booy rawuñu leen wala ëpp ñu leen bës wala peuple bi topp leen est que est tamit amul. waaye moo tax Anta dimbali ma waaye luy bës non dafa lànk rek la mooy bës yow ñu ñu def suñuy permanence nekk ci làmb ji di dóorante suñuy morom. suñuy permanence. nekk ci làmb ji permanence. di dóorante suñuy morom di rayante. waaw ah ñuy ñuy ñuy dóorante ñu ñu mun ñu leen di daan ñu ñu mun ñu ñuy daan. ñu ngi wane suñu lu ñu war a wane tey war nga taxaw naan booy ay bës luy bës booy ban bës la am wax tey seen làmb ñu rëy yi naan dañuy wax si yàq nit yàq nit léegi mooy bës kon Sénégal yoo yomb na fi de dangay xool moo Anta yàq ko pour nga am bës da ngay xool Thier pour yàq pour nga am bës da ngay xool Grand Lirou yàq ko pour nga am bës boo yàqu Lirou doo am bës mais te fii bës làmb ji ñu fi am bës ñi ngay dégg nii ñuy reyante di tekki di teral seen waajur dañoo dugg si diin yi. dem bëre di daan kan moo daan. 5 tonnes a ngi daan. am victoire. cinq tombes musul am man arrêté man bëgguma wax si ñooñu man bëgguma wax si ñooñu xam nga man bëgguma wax si ñooñu ak mu baax ma ñàkk sama yaay damay lekkante ak ñoom. billaahi wallaahi tallaahi. man nga leen est-ce man nga leen ma leen man jéemu ma mën kenn jéemu ma mën kenn mais li may wax ñoom xam nañ ko bu baax man lii musuma see wax ci àdduna mais dama gis benn geste boo ne fekk naa fekk la geste seytaane la barki jéem nga yàq la de guerre lu ñaaw xëy suba dem kër la de mais luy loolu lan mooy loolu man geste yooyu noonu mënu ma ko convertir mënu ma ko mënu ma ko mënu ma ko mënu ma koo lijjanti man dama gëm a gëm góor nga góore nga nekk góor quoi nga xam ne yow góor nga waa man tey Modou Anta ak li ma munti wax ci àddina wallaahi ak billaahi wallaahi tallaahi fu ma taxaw moom laay assumé barke alxuraanam karim nañ réglé man lii indiwuma fi woon safara ma fi indi mais mais billaahi wallaahi daf ma metti ba ci kanamu yàlla ñaari nit ñoo bëgg a yàq géej waaye ñaari nit ñaari nit ñoo bëgg a tas géejuwaay ñaar ñu tekkiwul sarab ndeyam ñoo bëgg a tas géejuwaay barke alxuraanam karim tas tekkiwuñu fi dara bëgg a yàq géejuwaay barke alxuraanam karim suñu arrêté wul billaahi wallaahi tallaahi suñu arrêté wul suñu arrêté wul barke alxuraan dinañ gis lu leen metti tëkkuwuma si kenn si sëriñ nag si sama bopp laa tëkku waxuma ay sëriñ awma sëriñ bay tëkkuwaate si sëriñ awma sëriñ awma dara su ma amoon sëriñ barke Demba Ndiaye damay daan yaa ngi dégg barke alxuraanam karim bu ñu arrêté wul dinañ ko jëflante bañ xam ne jëflante nañ te wax nag xam naa ko Ah, eh, tey nag def naa lu ma gëj a def de. maa looy seddal bi. ñu sant yàlla bu baax di nuyu sant eh? bi. Eh? di gërëm way juri bu baax a baax. di nuyu fi ñu fekk nii muy góor yombul. muy jàmbaar ju nangoo liggéey. bëgg lu baax. te nangoo def lu baax ndax man tey laa bi soog a ñëw. ànd mm-hmm. sama doom day mëcca. Mm-hmm. ñu fekk suñu grand léeru. mais wax dëgg yàlla ma ñëwee muy taalibe Cheikh ba noppi ne safar safar ko mm-hmm. toll na ma trop dañ koy ñaanal yàlla suñu borom mi am xéwal te di fay yàlla suñu borom ful ko mm-hmm. dafay ko dafa ko aw yiw ak ay xéwal yu yaatu mm-hmm. ba li mu bëgg liggéeyam bi suñu borom may ko si lu kawe njortam wax na lool te waaye na lépp benn la ndax moo nag see bañ a fekk mais sànq mi ngi seey daal ne loo def mu yokk mu jig la daal doo ko ba kon nag Serigne Touba bi tax muy def yàlla ko ko defal ay yiw yaatooy ak xéewal mm. sotti ko ko si barabam yëpp mm. incha allah ok mais temps yi tamit seen géejawaay gi yëngu na de waaw non géejawaay yëngu yënguwul yënguwul mooy que ni wax ay mbaliti nit dong lañu ay sagari nit yoo xam ne tekkiwuñ dara li ma ci wax sax man du ma si sax suma sole na parce li ma si wax naa ko si maa ngi leen dégg ñuy wax nag mais Serigne Saliou xam ne gisaguma si kenn te mënaguma leen te xam nga ah. ma di ma di wax di nga wax li ngay wax foo ko teg man laa soxla man nag mais est-ce ñiy waxal samay kilifa lañ te bu doon lu ñu def la man du ma bañ bon Aziz Ndiaye ñoo bokk benn deret muy sama mag man du ma mbër ma waxaat ko du ma mbër non damay ñëw fu may wax du ma mbër ah. sonn ma ci laamu dafa ma daal te bu ñu tëggee jël seen combat yi mag dugal ma ci fay ma xaalis bu bëree bëri seen yaay ak sama yaay la seen baay ak sama baay muy maak ñoom kon man am naa mi droit défense sama mag te amuñ jotu ñii te nag mënuñoo liggéey li ñu liggéey Sénégal gi liggéey ko ci làmb ji ñu nekk bu ñu ñëwaatee la ñëpp xam ne làmb mi ngi ay niñ tekkiwul daa taxawee di saboté ak jaxase xam nga wax dafa doy ndax te boo waxee daa ko wante moom du déglu wax ji lépp day déglu li nga ma wala Balla Gaye bett dafa jegente famille deret maa nga bëgg a dugg mag ji rakk ji am na defet mag ji am waa tax nga bëgg a ñëw di wax wax joxoon comme si que Balla Gaye dafa ama problème Sa Thiès ba da ko yéenew daal loolu nag su may Sa Thiès génn arrêté ko xamal tax parce que bu mu nangu kenn tàqale ko magam ndax ku soñoon am mag ju mel ne Balla Gaye ndax Balla dafa ñëw fekk fi dara fekk amul kër amul kër amul fekk fi kër fekk fi dara mu takk ndigam rayante rayante ba am kër dugal la si dugal si sanday dugal la si dugal si boppam dugal si ay rakkam loolu kon wàcce na Sa Thiès foofu coono Sa Thiès takk ndigam na di góor moom it kon tey dafa woo moom li ñuy def nii moom moo ko war a def moom moo sa robu avocat défense Balla Gaye am ne mel ma ko laa koy téye dinaa ko téye ba abbu ay loxo téye la ko Gris da nga nii gis nga Gris Bordeaux mm. ni mu ko ëmbee lu xewle lu Gris Bordeaux xewle woo luñ tuumal Gris doo dégg Gris Bordeaux ngay dégg kon gone yi jóg di saboté sa mag jeeg di la bëgg laa gëm kenn mënu laa yëkkati bëgg a wàcce Balla Gaye ku ko wax waxut dëgg nit day yëkkati Balla Gaye ba booy la ànd yëkkati te man su ma sama mag soo ñu yëkkati ah, boo la ñu yëkkati wala nga boo ñu wàcce rek waaye doo tagg di ba la jug wax ak booy ñu arrêté ko preuve amu fi Sa Thiès day liggéey Balla Gaye day liggéey mu ngi dëkk dëkk war a day ay mag rak isaml na wax Sa Thiès dafa amoon combat Balla Gaye ne si combat ñoom ñaar ñëpp ku ne ne si sa combat kon lan mooy nday ay diw daa ñoo andi taxi bu mais bu otom paane wala xayitam benn Balla moo ko oto Balla Gaye est fi est moom woon na Balla Gaye na xam naa soxla oto otom moo paan n'est-ce pas wala wala et cetera mu jël taxi dem wala moom moo sax sant jël wala mu génnoon jaar fenn jël taxi moo yàqamti loolu daa jar détail ma ko ki tabax kër ba mu rafet eh, ngeen nekk fa si jàmm ak salaam am na problème mu jox la oto bu la yóbbu signature contrat nañu arrêté yii ñuy def nii rafetul famille jàmbur kenn a wax ah, mais man li du si débat man la loolu man la engagé est-ce ah, ndey du seen morom

tamit boo leen duma est doo wàcc yoon. yoon moom yoon moom mën nga ko ba duma leen est-ce que doo wàcc yoon. moom ñoom ñi ngi wax leen neex soo duma ba pare da nga jël li ñu wax yóbbu si yoon yoon àtte leen man ba ñu ma loolu yoon ñëpp la fi jàngal comme dañoo reew ba wax dinaa reew ba def li may def yoon boo yoon boo yi duñ ñu ñëpp àttañ ci kàttanu yàlla man ragalu ma loolu. na foofu. ëpp na ko wax dafa wax ju ñaaw daa mu te li nga wax bu doon dafa am solo wala bu doon dëgg sax mais chaque wax détail détail détail détail yooyu man taxuma sa jug amul lu may wax si ñoom wax ji bëri na trop ba màggal Touba ap su ma fekkee Touba naa leen cinq tonnes màggal daa dem ba ko ñoom moom dafa war a góorgóorlu li muy proposé ak li muy proposé nit ñi ak li muy imposé nit ñi lu war a jëmale si boppam la barki dem yaa toog fi mu naan daa teggi na te 40 millions nga mu baal ma si kàddu yow sa yaay Touba fee di fóot ay fóot 1500 sumu 1500 lijjanti wooloo bàkk Serigne Saliou Mbacke bëgguma wax damay leen xam leen xam nga barki dem génnaana yow gëmoo ko ma ne la Bébé Elton moromu Lirou la yow gëmoo ko fi ñu toog nii di wax am na ku ne fi ñëw rek nee Bébé Elton ñoo maase ma ak moom. la Bébé Elton moromu Lirou dama la ko wax si ay nga weddi ko nit taxawul fekk la fii nga toog léegi nii ne la maa moom ñoo maase ko xam nga moromu Lirou Diane la. kon waaw kon xam nga ko moromu Lirou Diane la mayeen am na doom gëmoo ko woon kii nee na doomam mën na mu ñëw nee na doomam mën na ñaaraleew kon Mour Anta foog ñu xam ne université. 5 euh, tonnes mën na ma ñaareel doomu bébel tonne mën na ma yow léegi 5 tonnes ni ma ko xamee mu nekk Dakar gii wari cogoo ko wayaan di dee nan daa teggi na 40 millions na dem utal yaayam fu mu nekk te fat ko te yor ko moo gën bàkk Touba Gueye mu wër di fóot sonn na trop. bis eh, barke Alxuraan maa ñoom ñoo juddoondoo yàlla non ñaaw lu ñaaw lañuy wax ni nga ko xamalee nit ñi ba koy wax ñun dañ koy xam lu gën a ñaaw gën kaa metti te buñ jiitee sago naan liggéeyu ndey liggéeyu ndey yow yow lu la sa ndey liggéeyal ñi ngay xas li seen ndey liggéey ñoom ñoo tedd yàlla tëral leen di tey nga tëgg diw nag du force man maa ngi nii alburax fa laa dama am combat waaw daa tax ma ne damaa war am combat force ma ci amul. keneen ak sa euh, armée armée bi ma daanoon sax am na. waaw man damaa am est-ce que tax na ma wax lu ñaaw. parce que damay xaar sama wàll nga ñëw. kon Aziz ak lay xeex. parce que jox na ñëpp voilà kon léegi. léegi àdduna du noonu c'est lu lu ñor tàbbi. lu ñor tàbbi léeg-léeg mbër da gën a jublu nga mën ko tëgg. daa mbër moom alors que tey boo ko bëggoon tey Alioune Seye moom mu ngi wax li la pour Albourakh tëgg ko c'est difficile. ndax parce que ñi ko yor. ak Albourakh tey manager bi la yor wala promoteur fi ngay bokk liggéeyu la a kii liggéeyu ñoom ñaar. mais Alioune nag bokkul ci benn structure. Alioune Seye Lan Ndiaye moo ko yor man bu ma nag wax di wax di làq-làqal këll këll ab Lan Ndiaye pour nga tëgg Alioune Seye 2 c'est difficile. ndax lan pourtant Alioune Seye jandeer ko. c'est difficile moo daan tax yaa ma gën a xam ne Aliou Abdoulaye Ndiaye mbërëm nga tëgg ko pour Albourakh sax difficile yan bu diis man ba ma ko utal premier combat maa ko doon wut Abdoulaye Ndiaye ma bëggee kànji tëgg ko c'est difficile dama si sonn abaan disqualifié ko si làmb taxawoon na man man la gën man maay wax man Abdoulaye Ndiaye moo ma maay wax bëgg ma woon a tudd Abdoulaye Ndiaye mais dama ko dara kilifa la am na fu ñu jaar teewoon sama licence bëgg ma ko pour lu ñaaw mais dafa am koo xam ne bu la yoree ak promoteur bi pour ñu liggéeyuñ mi ngi mel ne tey Fallou Ndiaye bëgg a tëgg Abdoulaye Ndiaye loolu yombul noonu la demee pour ñi ñu xamul ñu xam ne léeg-léeg promoteur bëgg combat bi mais ki lay yor manager ak moom mënuñoo liggéey. Kandji bi mu bëggee tëgg yenn bu diis ak Abdoulaye Ndiaye c'est difficile. Fallou Ndiaye mbërëm euh, promoteur pour mu tëgg mbëru Abdoulaye Ndiaye c'est difficile. kon bu ñu dof dof lu xam nañ lan moo ne si biir làmb kon bu ñu andi jaxas Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 Aziz Ndiaye amuñu problème Lac de Guiers Aziz Ndiaye amuñu wax na Aziz Ndiaye wax na ko Tapha Tine ni mu naa sama alal jox kon ñoom ñooñu nañ génn xam ne la mbëri booy ndaw yi di wax bu ñu yàq sama diggante ak diw parce ñu ngi seq suñu jàmm jotewuñ dara mënuñoo yàq kenn nag yaay wax ba yàqu seet te ñoom géej yaa am na boo xam ne sama xalaat sax dañuy lisut mën nañoo wax normal mais am na ñoo xam si ni xamuñ fuñ ne buñ la rombee suñ lay noq ba ray la duñ ko doo ko doo ko yëg loolu laa amal ma si wax jërëjëf kooku mooy